Jawa Zero TV dan Global News. rafetlu li nga xamante ne mooy ki nga xamante ne Ousseynou mhm. di sunu lépp ndax ku am ker nday am nga ker bay te Ousseynou Thiakri moy ker ndayam eh, te drapeau bi nag mu duppee ko waa jeune Thiakri des almadi yep ah, ah. te jeune Thiakri des almadi dafa am lu ñu xame mooy fula fayda yar jom fit kon drapeau Thiakry des Almadies champion moo koy jël ndaanaan moo koy jël ku liggéey moo koy jël euh, ñu leen wax nag drapeau bi couleur la boo xamante ne am na lu mu def ci waa Thiakry des Almadies ndax ki ñu ko tuddee dafa di koo xamante ne képp ku mu dajal ka deg doomu Thiakry rek li nga yor moo ko moom kon moo waral drapeau bi teewaay bi boo leen gisee mu demee nii dembu de dañoo yónni ci situation mooy sargal monsieur le maire Mbaye Dione moo xamante ne wax dëgg liggéey na liggéey boo xamante ne ci biir Ngunjaan ku ne gis nga ko ñu xayaat tey yënduwaat ci sunu benn colette boo xamante ne da doon def ngente léegi kon nga xam ne nii nii nii ñu def nii kilifa yu bari ñu ngi foofu eh, ñu yebal ñu ñu ñëwoon def teewaayu mooy drapeau jeunesse de Thiakri des Almadies jeunesse de Thiagri des Almadies dama koy répété waat comme jot naa ci micro central bi jeunesse Thiagri des Almadies fit fula fayda jom bëgg seen bopp Ousseynou bu ñu tudde drapeau nag fu ñu mën di dajeeg moom ci àddina lu ñu yor moo ko moom kon bes bi euh, lépp loo leen ci gis rek bu leen yéem loo leen ci gis bu mu leen yéem drapeau Thiagri des Almadies champion moo koy jël ndaanaan moo koy jël ku liggéey moo koy jël kon ñu yemale cadeau bi foofu. Ousseynou ñaari baat rek ah, ñaari waaw Badou kontaan naa sama xol dafa set. Oh, ah, Badou ñii ñooy sama deret ñii ñooy sama doole. ñii seen ay waajur ñoo ma yar. billahi demaa kontaan sama xol fa set. ndax eh, ñoo ma yar daal. depuis ndaw ba léegi am na ñu bëri mbus naa dañu yaakaar ne man caati laa dëkk lu fa xew. kenn du des di caaq yi nu mu toll yëpp kenn du fa des kenn du des loolu ñun rek ñoo ko am billaahi kontaan nañ yàlla xam na fu ñu taxaw ñu taxaw kontaan nañ billaahi oh oh oh Mbaye dañuy nuyu askanu Nguñaan yépp gor ak jigen mag ak ndaw di rafetlu li fi am tay commencer d'abord par sante ak gërëm jeune ñi nga xamante ne ñoo am initiative taxawal structure bi ñu tuddee Mbousnakh Production ñuy ay doomi dëkk bi di ay xalé xamuñu mënuñu waaye am nañu ak bëgg-bëgg bëgg-bëgg bi yàlla xiir leen ci làmb waaye ñu ne duñ ci jiital kenn ku dul seeni ñoñ seeni ñoñ nag mooy seeni rak ak seeni jërbaat yi dëkk ci tund bi doon ay mbër te yaakaar ci làmb ji ñu ne dañ leen di jàppale mënoon nañu def lii ndakaaru njaay ndax à Dakar fa la lépp xewe kuy organiser làmb te organiser woo Dakar yaakaar nga ne organiser woo waaye ñoom gëm gu ñu gëm seen dëkk gëm gu ñu gëm seen doomu dëkk moo tax ñu décentraliser làmb ju tol nii indi ko fii Ndakaaru ñu leen di sant di leen gërëm di wax waa Ngunjaan ak waa tund Ngunjaan tund bawul yëpp ne nañu jàppale Mbusna production en tout cas le maire jox na leen loxo jàppalante na ak ñoom fas yéene leen a jàppale ba ñu àgg fépp fu promoteur di àgg waaye dama bëggoon nag sant particulièrement kii nga xam ne seen mag la di seen nijaay le promoteur Sidi Diakhaté nga xam ne fekk naa ko fii moom itam ñu fekk ko ci gëm-gëm boobu Sénégal yëpp xam nañ ko ci le promoteur de de la site du rail muy promoteur u te moom mënoon na organiser comme ni ñëpp di def dakaar waaye gëm gëmu gëm ne waa Thiès la décentraliser lamb Thiès gëfe naa ne waa naa ci loolu lañ ko fekk si kon si di jërëjëf ci sa teewaay waaye jërëjëf ci logique wu lambu Thiès bi nga nekk. Bada Dione euh, merci jërëjëf sa teewaay. waaw une dernière question parce que gugu dina. yéen est ce que pare ngeen pour euh, bu sii de ñëwee fii ngeen xajal ko yaataal ko mu def nit ñi. incha allahu rabi xam nga infrastructure bi ñu def ni stade bi maa ngi koy wax waa naa production dama ne leen mairie bi bu defaroon lii ba pare mbaam yi ak xar yi dëkk fi nun duñu kontaan buñ ko defaree ba pare nag gis ay doomu dëkk bi ñu koy valoriser dañuy kontaan. motax ñu jaajëfal kon donc ni wa musna amé fi wal la fi Sidé la fi Bada stade bi stade la stade bi stade la stade bi stade la stade Sénégal la ku bëgg organiser fi ko yombal que la fête soit belle que le meilleur gagne que la jeunesse gagne. merci beaucoup. c'est le grand retour de Sangouniane le fils du terroir yaa ngi nguñaan dellu si waa ngi nguñaan waa nguñaan nag li ñu lay sas mooy nga indil leen ndam Cheikh ñang bëgg nañu gan ñu ngi lay ganale nguñaan waaye nag nee nañ la ah da ngaa fekk si waroomu nguñaan de <laughs> nekkal champion jërëjëf Mamadi retourné ke wax na bis arbitre bi passé na leen visite daa mel ni ñoom ñaar daa mel ni ñoom ñaar dañuy xëjoo fi ñu toog fi ñu taxaw daa mel ni dañuy ñoom ñaar dañuy xëjoo fi ñu taxaw ñoom ñaar ndeysaan ndeysaan am waaw waaw ndeysaan am di maa ngi lay ziar bu baax di ziar mbok mbokk internet yëpp vraiment di nuyu lay pro di nuyu gaa yëpp vraiment mu ne combat bu ama am solo bi nga xamante ne su jeexee lamb mun na gën a dëkkuwaat fii ndax dafa ñaari nekk ñaari mbor yi nga xamante ne ay mbër gox la ñun kii ware Thiès kii ware Ngunjaan waaye nekk ñaari mbor yoo xam ne dañoo gija bëre ñoom ñaar waaye ñom ñaar yëpp seen combat yu mujj dañoo am ci defet lu ma cinq ans ngi nii mun naa ne saa Ngunjaan bërewul waaye Seynia moo ko mujjee bëre waaye ñoom ñaari ci defet lañ jógee tey arbitre mu ngi noonu di wax ak ñoom dernière consigne yi ñu ngi wax ak ñoom lamb waaw taxawaayu sangu ñaan gis naa ko ne indi na poids indi na poids mais bu doon man du ma nangu combat bi combat bi yàgg waaye say ñaar dafa mel ni tamit dafa xaw a wàññi quoi tuuti waaye mun naa ne yen bi mu ngi waaj a suufle mu ngi waaj a suufle sangu ñaan toj na nen ndeysaan euh, Aliou jox ma air bi eh, ndeysaan ndeysaan waaw ñu ngi noonu combat bu wa. parce que gars yi dañu mel ni dañoo xiifante. 219 et 33 minutes. waaw li ma jaaxal nag seen ñàkk xeexkat la. fii ci stade municipal bu Ngoundiane. Ah. seen ñàkk bar na ñetti yoon. seen ñàkk bar na. waaw arbitre ba soufflé. seen attention. ñu nga boree lang ñoom ñaar diggante diggante seen ña ak ak seen ak mooy ak saa Ngoundiane. ba ko war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb. bilaay walaay. arbitre soufflé na combat bi 19 heures et quelques minutes. Mm. fii ci stade municipal bu Ngoundiane. tey Mbusnaa production moo ñu fi woo tombeeg le 4 mai 2020. 2022 ñu nga leweto ñoom ñaar ñaari xale yi diggante Sangu Njaan ndeysaan Sangu Njaan tànk tànk ndijoor la jiital Cheikh Njaan tànk càmmoñ ñu ngi leweto ñu ngi doxee wet combat bu nara neex lay doon waaye combat bi dafa mel ni combat xeex lay doon waaw combat xeex la dafa mel ni combat naxante la waaye ñaami dafa mel ni ku nara xeex dafa mel ni ku nara xeex waaye saa dafa mel ni jàppante bi la bëgg ndeysaan attention ah saa dafa mel ni jàpp bi la bëgg de Saatef Saatef mel ni jàpp bi la bëgg mu ngi noonu ñu nga lewetoo ñoom ñaar ñu ngi jàppante ay tànk saan ñu ngi noonu ñu ngi seetaan fi nga xamante ne mooy Diobass Info ak Phénomène TV waaye ak salaam Info TV ñu nga lewetoo ñoom ñaar ñu ngi lewetoo ñoom ñaar ñaari xale yi diggante Senya di liet na Bombardier waaye sangu njaan liyet na tafaatin mun naa ko waa ak xale yu bëri ndeysaan yi nekk ci ginnaawam attention boo ñaadoor see na ko benn droite di leen fàttali Patte de le Phénomène ngeen di teewlu ci fii di stade municipal de Ngoundiane attention attention eh, combat bi combat calcul la la ilaha arbitre bi waat na leen ci diggu géew bi wax na ñoog ñoom ndeysaan wax na ak ñoom waaw waaw comme manque de passé la te lay leen jox loolu la loola di leen di avertir maanaam avertissement bi duñ ci nekk dara ndeysaan bi pour pour man ñoom ñu gaaw rek la bëgg arbitre bi soufflé waat na combat bi Sangu Jaan ndeysaan moo ñu jox ngemb lu weex lii attention Sangu Sangu Jaan songu na ko Sangu Jaan songu na ko Seeña door jàppante nañ ñoom ñaar aa Sangu Jaan moo ngemb ngemb lu weex lii Seeña ndeysaan Sangu Jaan oho attention Sëñ Ñaa mu ngi door oho sangu attention Sëñ daan na sangu jaan Sëñ daan na sangu jaan oho daan na sangu jaan da daan na sangu jaan fii ci stade municipal bu Ngoundiane Sokho combat bi waxoon naa leen du yàgg. combat bi am di waxoon naa la du yàgg. combat bi waxoon naa la du yàgg. ndax combat bi waxoon naa la Sango Niang ci la mun a demee waaye ci la mun a taxawee. dafa mel ni Sèye Niang dafa moom moom poids am waaye dafa mel ni dafa mel ni Sango Niang tamit combat poids bi mu yor da koo xaw a sonal. ndax bi mu ko fàqee dafa répondre dafa bi mu ko fàqee dafa répondre ndeysaan. barki Cheikh Modou Kara Mbacké kii uh-huh. doom la mu tudd ba pare jël alalam combat bi lépp moom la ndeysaan aw ma politicien bu ma jàppale ku dul Habib Niang maa ngi koy gërëm di ko sant Habib Niang moom rek laa gis ci politicien ma jàppale Thiès kii moo jël alalam doon commerçant jël xaalisam jël alalam lépp lu fi ñëw moom la añ moom la kaar yi moom la te du politicien du dara di gërëm Bombardier bu baax a baax a baax sama idole Bombardier aw ma fayam di ko ñaanal di ñaanal waa tarixa bi yëpp muy écrit Bombardier bépp di ñaanal sama booy ñaa macha allah ñoom mënu ma leen a fay ñoom Badou Gueye ay booy yëpp xoolal ay kul bi suma moor mi nga xam ne Touba la jóge di sama rak indi yëpp ak Fallou Fallou maanaam mi jóge Touba ñoom dool bàyyi moo sama rak wér Mamour li nga gërëm seet li nga gërëm waaw waa ji mu man xamna sama tanki rek la soxla sangu ñaan du xex ak man mais sama tanki la soxla motax mu ma ubbil ko mu jóg ma suru ko waaw dafa dafa mel li ñu waxoon da nga koo waaw fii bañ ñi fi dugg quoi waaw ne woon ne woon nga koy fekk dëkk am daan ko loolu ko waxoon waaw ne woon nee na mosu fee daanu ma ko mën a fekkee daanu Diawazé TV nañ wax ak Diawazé